da koo jam poqet paaka yàlla ñu jàmm kon sama gars yi inna lillahi wa inna ilayhi raahi wa inna ilayhi raajihuun Mamadou Moustapha Ba mi fi nekkoon ministre biñ dénk wàllu finance ak budget ci jamonoy président Macky Sall moo génn àdduna ci bitim réew ginnaaw bi mu amee juróom fukki at ak juróom-ñeent cinquante neuf ans président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaale na ko boole ko kuk ñaan jébbal ko njabootam président Macky Sall moon dal ne Sénégal perte nañ kàngam Amadou Ba dakkal ab tournéem ngir ñëw fekke si dëj bi booba jamono Bougane gay Dany mu ngay def ay déclaration ne ci cinquante mètres carrés ay gunóor ak i kafaara nekkoon ci fañ ko tëjoon Tamba moom Bougane Gueye toftal ci dal ne dina porter plainte gendarmerie ndax dafa mel ne moom dafa tere ne la waa Pastef te commande bu ñu exécuter la ñu mel ne kuy jëmale ci moom Ousmane Sonko def ay révélation daal ne marché yaa ma neex diw mooy sama xarit moo ma gën a jege xëy na bu ma ko joxee marché mu compal ma Sénégal ñàkk na ci lu war a tolloog cinq mille milliards. walaay ndeysaan Ameth Ndoye dafa am kon benn technicien Seneweb buñ ne permis biñ doon wax ne numéro permis Ameth Ndoye la naka te technicien Seneweb boobu moo ko moom ginnaaw suba la ko yoon di àtte mu xam fan la wànnante di mu ki gëtam. Sénégal suñu gaynde yu ndaw yi duma nañ aigle du Mali yi ca final ba ñu doon def jokkoo njal a jaaraama walay ndeysaan waa ji rey nijaay ji ndax contrôler compteur woyofal da ko jam poqet paak lu ñu yàlla may kendal ak jàmm